10 jours. Pardon. Vous avez reçu l'informe copure Pardon, pardon, pardon. Attention derrière, attention derrière. Attention derrière. Pardon. mu ànd ak ay avocam di dox di dem Lamine Diack mu ngi agsi ci tribunal judiciaire de Paris bi sept heures trente jotee ngir fas yéene jàkkaarloo le juge du parquet financier du tribunal de Paris ki fi nekkoon ancien président de l'IAAF nar na wuyu ci accusation yiñ koy toppee lu jëm ci wàllum détournement de fonds ak corruption passive baayu Massata Diack nag liñ koy toppee moo di dafa doon corrompre ki nga xamante ni moo nekkoon directeur de la commission commission médicale et antidopage de IAAF mi wuyoo ci turu Gabriel Doll ak ñenn ci membre bu comité exécutif bi ñoom ñëpp ñi nga xamante ni jot nañoo laal xaalis bu bëri boo xamante ni ki leen ko jox moo di Lamine Diack ngir ñu daal di nasaxal bépp test antidopage boo xamante ni jëm na ca athlète russe yi nga xamante ni participé woon nañ ci championnat du monde de l'athlétisme ñu mën koo ràññee ak karaw gu weex gi waaye tamit ak lunette yi muy tàkk nag bi mu taxawee ci kanamu àttekat yi li mu njëkk wax moo di une mauvaise audition un état de santé assez compliqué mais je suis là. li leen ca waaw xam nga ñi yow jàppale leer na clairement maa recevoir des mots de de tout le monde. waaw léegi nag. di leen sant waaw maintenant nag waa. éviter ce truc là et puis et puis parce que oh, oh. xam nga jot fi def fi. juróomi weeri koor ak juróomi korité nga ne euh, il est serein il est conscient nga wax ñu ko waaw voilà met met met non met moom dégg loolu moom dégg dégg dégg loolu. non man man lay wax. waaw taxawal nii rek taxawal nii rek. waaw. Mbène Ndiaye wax nañu ci ci ci wolof procès nu mu nu mu tëddee tey. Ah, jusque là nan la ah, ah, demee. attends on xaar xaar ma ñu indi si comme ça ça va fédération russe bu yor lu jëm ci wàllum athlétisme dafa yëkkati lu toll ci trois millions sept cent cinquante euros en espèces teg ko ci loxo Lamine Diack jaarale ko ci seen intermédiaire bi di Valentin Balak Michel Lamine Diack ak doomam ji di Masada Diack di consultant en marketing autorité sportif yu russe yi bëggoon moo di tëj seen gémmiñ ba duñu contrôler seen sportif yi positif lu jëm ci wàllum dopage ci championnat du monde de l'athlétisme bi nga xamante ni amoon na ca atum 2013 foofee ca Moscou ci bisu procès bi nag Pape Massata Diack di doom ci Lamine Diack moom kenn gisu ko ba tax nag ñu daat koy fëggaat beneen mandat d'arrêt international boo xamante ne juge d'instruction bi moom moo ko jox Pape Massata Diack nag leneen luñ koy toppee moo di dafa négocier woon ay contrat yu jëm ci wàllum sponsoring ci turu l'IAAF te fonds yooyee kenn tegu ko bët ci kees yi institution sportive bile bu ñu sukkandikoo nag ci présidente tribunal bi Massata Diack daf doon yëngatu ci wàllum blanchissement d'argent waaye itamit leneen luñ koy toppee moo di corruption active ak détournement de fonds ba tey nag bu ñu sukkandikoo ci tribunal bi Pape Massata Diack jot na dugal xaalis bu bëri ci compte offshore ba nga xamante ni ma nga nekk ci Singapour procès Lamine Diack ak doomam jiiti Pape Massata Diack nag dañ ko dàqaat ba le 15 juin 2020 juin waaye nag laata loolu kii di Lamine Diack moom tribunal bi dina ko dégluwaat dans le fond le 10 juin gi nu jëm waaye nag lundi 15 juin 2020 ci lay daal di xamee yan daan la tribunal financier bi di teg ci ndordam yi même fee yi sax moom la ñuy toppee ki nga xamante ni moo ci maître Habib Diallo bi nga xamante ni moo nekkoon avocat ak conseiller bu président Diack ca jamono ji nga xamante ni mbir yi mu ngi xew lamin Diack nag bu moytu wut yoon dina ko daan lu toll ci dix de prison maanaam fukki ati ci kanamu trente deuxième chambre correctionnelle la pour corruption active et passive abus confiance waaye tamit lii di blanchiment d'argent en bande organisée